ba gars yi gis nañ commentaire yi gis nañ visionnage bi ni mu normalé mais lenn moo des balaa ngeen a seetaanati bés leen like ba pare ngeen doog a dem seetaan c'est bon voilà te xam naa di ngeen def loolu j'espère que di ngeen ko def voilà like surtout wax ñu sikk ma ni kii mais kii se fini yow baadoo la nga waaw yow kuy toroxal nit ba wañ yem ci yow day waññeeku yow mariage lu ci yoonu suñu kër li fi am suñu famille li fi am ba discours bi nga jël fii nga war ko jël fii yow man dànkaafu naa la laawee fii xamal ni ngay waxe buñ la joxee ni la waxal na nga xam ni ngay waxe mais man xam nga am dafa am na mais doppooral mooy kii mais yow la lan la gis nga kii c'est fini kii dina dem yoonam ah, day génn fii damay génn fii da ngay génn kër gi yow. yow ñaata yoon nga ma génne yow. wa bii mooy c'est fini bii mooy bu dernier bi. dama ne yow ñaata yoon nga ma génne. bii mooy dernier bi. ah yow gis nga sama baay ba muy dund ah génne loolu sax këram yow yow. man xam nga lu tax ndax truand ak sàcc yow. man yow biir kër gi xam nga loo fa nekkoon sama baay da laa beddi mas naa toog ñun ñëpp ñu toog mu woote réunion de famille mu ne gis ngeen kii moo gën a bon ci kër gi dinaa ko génn ci biti man maa ci jàpp keroog wax ak moom ba mu bàyyi. yow mi yow yaay yow yaa bon yow. yow nga taxaw fii tey naan yéen da nga may génne kër gi. kër goo xam ne yow sa moom moo ko dèjà. sa doom nii léegi nga toog nga yow taxaw taxaw ak man may bàyyam mu ñëw taxaw nga naan yow dama lay génne kër gi yow. yow da ngay ba yow ba tu moom yaa bon yow. yow génn ba baadoolo ba yaay ba yow baadoolo pire mooy yow yow. mooy maanaam keneen naa yow yow defe nga ne ay bëyu baay tax na ngay bëgg xawi sutura kër gi sën sax dalaa jëppi ma wax la ko sën yëgoo ko sën dalaa jëppi te ku ñu waxoon mu ne bàyyi leen caam seen deret la bàyyi leen caam sën sax dalaa jëppi waxuma la sën waxuma la ordure wala désordre je m'en fous de dara ah! waxuma la ak yow eh, dégg nga baal ma sën sa morom laa bëgg nga nga dañ nga ah, fi ah, yéen wax sax ma dugg yaay moom vraiment génne leen ko ci. waaw voilà mi ngi day exagéré génne leen ko ci papa nag faralu mag papa ah. mais mais papa Thiam sérieusement li nga def c'est très honteux pour la famille. waaw c'est ça waroo ju mel noonu ci biir kër gi. parce que ñi ngi mënoon nañoo ba dem te duñ ñu xamal. voilà sérieusement d'accord ma ci tel père tel fils. Eh, ah comme ton père yaa yaa moom yéen a yem. pas ah bon. na me parle pas de ce français académie académie là dàqoo ma jàng ma la dàq jàng téeméer yoon. nga dof bëgg nga réglé. moo tax nga dof yow yaay kan yow. sa liir bu bari bi ah. yoo xam laaj lan la yow. Ah, laaj nga ko. la ma fekk xamuloo ko lan la. xam naa ko fa la ma fekk c'est li nga wax sekk yéen ñaar sama yoon nekku li nga war a li nga wax ci biir kër gi fii te ay gan nekk fii loolu waroo koo wax papa. dama ne y a des choses waxal lan moo ma échappé. waxal il me doit cent cinquante mille francs. sama béyu baay cent en retour xam lu ma jox. il me donne trente mille francs. voilà léegi mi ngi naasi ci erreur. xam nga nu mu demee trente mille francs xam nga nu mu demee voilà. beneen xaayu sutura boo yëgul. waxal binoom mi doon tàkk. da koo c'est pas ton problème. maanaam léegi nag waaw loolu tax man la yëgule xaw may jox mu ne ma déet cam amel na ma xaalis. waaw bu ma jëlee lépp sax damay tas yaakaaram parce que yow tu lui a deux cent cinquante mille mais da koo da koo dagg cent vingt mille la jël ne ma jox nga yéen tapet ngeen. loolu loolu ah léegi nag ma ameel man wala ma gis ngeen. ci nga sa binôme laa. Ah. dafa dafa ñëw appeuré leen. ngeen di trembloter devant lui. yow te man je ne tremble pas devant ce gars. xool qui prend cette qui prend son argent. nga jox ma trente mille francs xoolal ma jàpp ak yàlla man ma téye ci yàlla su nga seen kër nga wax dinaa génn sa kër abal nga yow binom binom bu yégee le xam yow jaam dëgg yow yaay jaam yow yow yaa ko dogale dogale wu ma ko dama ko fekk na binom ñëw fii il m'a dit eh, ça en tout cas yow da nga génn yow da nga ne looy xaar yow comme toi un un gars nga war a nekk gorom war ko may may jabar nga ñëw di trembler devant lui yaa xawi suñu suñu yaa ko leb di ko ñaan xoolal et puis dembe xoolal je vais recommencer dina wax ma wax dama ko na waaw waaw damay génn léegi xoolal xam nga lu ah, ah. sama yére yii ma weer fi si biir kër gi ah. mu wow ma abal la sa kër yow mais demal weer ko ci fi nga daan toog laa lay abal yow toi sa kër yow laa wax parce que je ne parle pas avec un riz responsable je ne parle pas avec ce de de paille là waxuma kii ah. xoolal eh, eh, eh, non non de mèche yéen ñaar. yow yaa ma génn loo yow. yow nee nga yaa moom kër yaay fay kër gi yaa joxe lépp xoolal je. xool je vais sortir de ta maison. ok bàyyi ma def ce type là. je ne parle ce mauvais xool de famille là. xoolal kii waxuma ak moom. voilà et puis bëggatu ah, kër gi. maison là on va la vendre nga ma reporté ma xoolal bis xool kër gi xoolal dañ koy jaay te si biir kër gi laa lay fekk nan la nañ jaay kër gi xoolal je je vais t'empêcher de dormir dans cette maison là faux type que tu es espèce de ouais eh je n'arrête rien. je n'arrête rien. arrêté wu ma dara arrêté wu ma dara. arrêté wu ma dara xool damay konkool waaw eh, eh. vas-y. waaye vas-y. non non non papa papa papa non papa non tu ne me touche pas. waaye bu ma laal bu ma laal. papa papa looy maa jëriñ looy maa jëriñ looy maa jëriñ. me touche bu ma laal bu ma laal. tu es de mèche avec lui bu ma laal. ne me touche pas. kii bu. eh bu eh bu yow laa waxal yow bu je parle avec toi tu es de mèche avec ton père dinaa leen fekk ci biir kër gi je vais vous mener la vie difficile la vie dure les résistances au large loolu ngeen di bañ nga ne lan waxuma dëgg xoolal di nga xam nga ne waxuma dëgg ñëwaatal da ngaa tapet ah damaa sa vieux là doom ji di ko atte daw yow yaa ñàkk fayda calal fële waa waaye foofu laa leen fekk dangaa demoo sax ça c'est quoi non dangaa demoo lay daw ñëwal ñëwal ñëwal non ñëwal laa ah, wax ñëwal yow laay waxal ba l'avarice des avaricieux ba doon nitul dara yow waaw doon nitul dara la mooy mu yéen yow xanaa xamoo li xaw si kër gi yow foo nekkoon yow biñ may génne si kër gi fan nga nekkoon yow fan nga nekkoon laawa fan nga nekkoon fan fan nga nekkoon biñ may génne kër gi fan nga nekkoon ba ak doomam ñoo ma génne kër gi génne nañ ma ci biti kër gi dootuma fi dugg laa wax kër gi c'est fini dootuma fi dugg man bañ may génne foo nekkoon lan moo xew lan moo xew xamuloo ko ba dóor kat la sama cent cinquante mille sama bëyu baay la ba lekk ba mu des trente mille francs trente mille francs ba mu séddoo ko ak doomam. mooy bi ma bi waaw bi la binam jox. jox ma ko man muy sama bëyu bay nga bàyyi la ma ba loolu ba ba ba dara laa wax man ba baaxul waxoon naa la ko ba baaxul mais nag xoolal si nga kër gi suñu kër ga dañ koy jaay ku ne dem sa yoon waaw fekkee nag da ngaa bëgg a bokk bi nga wax ma ko léegi ma dégg soo bëggee bokk rek wax ma ko léegi man ma dem sama yoon waaw caam man damaa sonn man du ma nekk ba léegi naan maa ngi xeex bëy baay bi jox nañ la ko ba lekk na ko amul benn problème xamaloo bëgg nga def ko nga may ma dinaa la jënti loolu am junni bii maa la ko jox nga jënd ci añ nga dem añ te génn kër gi naa ko gérer. ma génn kër ga. non naa ko gérer yow demal rek. yow nga fekk ma ci mbedd mi nga naan ma génn kër gi. lu tax may génn kër gi génn naa kër gi ba pare. waa léegi nga dem dama jox 5000 naan ma dem génn kër gi. dem a naan sa xol bi sedd guy. dama ne kër gii dootuma fi ñëw laa wax. waaw ba tey bu fi ñëw dootuma ñëw ci biir kër gi man ak ba ak doomam c'est fini et doom ji la complot bu bu moom a gën a bett man. bu ak li ma ko defal ci kër gi yëpp mu dem complot ak baayam waaw xoolal maa ngi dem dootuma ñëw ci biir kër gi. naa ko liggéey amul benn problème en tout cas mi ngi noonu. yow laa fi dese ah. amul benn problème maa ngi dem suma yoon nag baax na. noo kii bés bu dofee dof bu difficile lay doon ponkalum dof mu toll ni xay gii di wax ay bëyu bàyyi cent cinquante mille man kër gii yàlla ma fi yàlla jëlee ci jàmm ak salaam ma dem sëyi di gérer li may gérer ndax fii moo fi toogee sama sei bi day jékki-jékki rek avorté mais ki dof la de baax na. Euh, kontaan naa kontaan naa sa délégation bi nga def ci tax ah yaay balu yaay Mohamed grande dame kontaan naa li nga def biir bi jaxate cim xam waaw waaw ok waaw. waaw sama xarit bu jigéen bintu gi ah, waaw ba ba meram naa la ah kon au moins droit invité ci sa mariage mais bët bu ruus dafay toj ci lan ba ne ngeen def caam nii nekk nag di xeex ak moom yow ba yow nit nga yow nit nga wala wala yow ban ban ban ban contestant nga bokk. yow nga fi ne di xeex ak càmm bañ ko génne kër gi nii yàgg yàgg bu ngeen ko soto ba day dem tribunal ne mu amee fracture de de de de de de main. ñun ñoo ko soto. mais yéen a ko dóor ba am na yoo xam rafetul càmm mi da ngeen ko war a yërëm yow ba yaata na càmm ay ba ba si da ci yàlla bàyyi càmm ngir yàlla. ay kii dafa baadoo la. ak ki dafa bari yow nit ñi ñëw gan ñi ñëpp muy wax te njëkk yow yaa ko njëkkee woon fii bi jabari boo jiitee fii nga toog ci état bi di wax suñu kër ni ñuy dunde seen joxum fu nga ñu seen lii fu ngeen ko jëlee ah mais nag lii day jeex waaw. Ah, day jeex ñoo bokk deret de. waaw ba ci lan. bu da yàqante ñun ñëpp a yàqante ko. waaw yaa ñu njëkk a yàq fii bi jabari bu di moom mu ñëwaat di di répéter la même chose. waaw waaye yow. waaw lu tax yéen ko jël bëy baay bi lekk ko ba mu des trente mille. ku ko lekk moo ma ko wax. parce que yëgoo li xew. lu xew ndekete moom dogale na fi binam ba lépp ko xaalis kan moom Thiam binom ni deux cent cinquante mille la ko leb donc bu jëlee lépp sax kon day yàqu ne am ma jox ko cent vingt mille xam nga nag jël naa sa déedéet dañuy jël na cent vingt mille ni jox ko trente mille loolu la moo def loolu ak lépp ndaa leboon bi nag yow ki ngay défendre da nga xam kan kii nag mi ngi doog a gas a boppam waay yow man yooyu yëpp intéressé bu ma ma téye de dama doon toj bopp bi mais <laughs> dégg naa ne xeex bu métti sax ci mbedd mi waaw bàyyi ko yow bu nga fene xeex di xeex a caab waay yow moom poñe moom a poñe caama la mën. waay caam xale te mag nga. mais yow. yaa ngi ñeenti jabar. mais xale bu réew naan ma je te casse la gueule caam ma wax loolu. je te casse la gueule loolu ci en tant que grand frère. mais tu t'as insulté war na ma insulté il m'a insulté. c'est vrai. il m'a insulté waaye ba da ngeen di muñ man yàlla def na sax man yàlla def na man heureusement bañ ma takkee man histoire yeeg clan yeeg. mu lépp ba dama ciy génn. ak la daa tax nga génn ci mbokk. ankay génn ma ci mbokk gi de ci kanaa yi laay génn ak defante yu bon yi moom laay génn man damay changé waat sama garde vie sama garde sama garde xalaat xalaat sama expérience expérience dañ koy xawma hmm, hmm. man ba yëpp dama koy garde yaa ngi dégg léegi nag binom dafiy ñëw binom dafiy ñëw fi la war a añee ba lenn maa ngi la koy dénk. waa kër gi nañ téye seen gémmiñ yi nañu noppi. parce que binom daal dafiy ñëw tax waa kër gi dem boîte vocale ñëpp binom mooy kan ba may wax kër yi ñuy dem boîte vocale ndax binom moo fi yendu si wax na dem këram bu bëggee nit ñu noppi waaye yow binom man xanaa man moo ko mayeloo sax fii waaye yow fii ñoom fu laa fi nekk ah waaye yow. waxuma loolu de dama ne binom dafa naroon saa yu xëyee joxe ñeenti ñeenti junni. kan bi dépense ñu koy togg ci kër gi di ko bokk di ko lekk damaa bëgg nga déglu ma. léegi nag loolu sama maa ko du nangooti saa yi ma xëy dama dem kër bi noonu togg ko ba mu neex mu añ ba suur ma gàddu sama saag ñibbisi loolu nag laa laa lay wax man xalaayam. moom loolu la naroon chaque fois mu ñëw joxe vingt mille ak kii. amul chaque fois chaque jour. chaque jour waaw. ah non comme xam nga programmé woon ko man bu ma ko déprogrammé day ñaaw waaw. parce que meroon naa ak Thiam moo taxoon waaw mais comme c'est déjà programmé amul problème man dinaa gis waa kër gi dinañ c'est vrai que dañoo bëri wax waa kër gi. ñu hmm. bëri wax lañu. du ñu sieste. waaw du ñu noppalu du ñu def lenn du ñu génn duñ dox yi voilà léegi dinaa régler loolu amul problème na ñëw amul benn problème. suba lay ñëw de. amul problème hmm. na ñëw. waaw na ñëw dépense bi dee ko parce que ñii dañuy yàq dee ko jaarale sama loxo. duma ko jaarale di loxo kenn maa koy téye sama saa yi ma xëy ma jox leen ko ne dépense. waaw ndax sama xaalis la. man ah. la ko jox waaw. am problème waaw mais léegi ceeb ba may jënd bitig ma jox bu joxe vingt mille wala dix mille bi ma dem fay ceeb bi sax mu noter fay ceeb bi. du ma la jox dara wala yow dégg olof loolaa naada. Ah. ceeb ba ngay jël ci bitig bi indi ko ci biir kër gi. waaw ci biir kër gi lañu. waaw léegi boo ko indee vingt mille francs yi bu ñu xëyee dinañ ci mën a togg añ togg ci reer. waaw ah, ok comme tu veux amul problème. nangu nga. waaw d'accord. ah dem ba kii dëgg ba nga naan ma ay lii wala laa man nekk ma ci de. non du problème boobu. wala ceeb bi da koy indi. dawlin ji da nga koy indi vingt mille francs yi ci la ñuy dugg añ ak reer. waaw binom na xam ne aussi bi mu takkee ba léegi gisoo wala nga ah, sa grand frère la kam. lu ma gisee lu xew. ah la. pour lan la. non moom bu ñu gisee na xam pour lan la. xamal naa la gis nga yow da yow da ngaa damaa bëgg a funda mat. lan lan mooy ñaar fexeel ba ko laaj dara. man dama ko mës a laaj dara. mais sa grand frère la. sëgam caami ngi leb ko bu dikkee ko laaj dara. man man man li ma li ma gisee moom caam gisewul ak moom te taxul ma leb ko. bu ko leb de mais yaa yaa yaa minimum loo xam ne nii moom xale koy motali man sa grand frère la voilà yow voilà. ñun ku ñu xas rek da nga da ngeen a bëgg xaalis da ngeen a bëggee da ngeen a ŋàppaaral da loolu mooy suñu suñu empreinte ci Sénégal. waaw problème dinaa gis dinaa gis ñi waxtaan amul benn problème d'accord ok. ñu ma dem marché. d'accord amul ah, benn problème. say dajale ko mayu ci kenn ba pare naan bi bëgg xaalis hmm? gën a tiit ñëpp. bon dégg naa sa jabar ci danga koo bàyyi um j'espère que rek euh, nga ci bu baax te jógewul ci man bu xam nga man bëgguma lu la naqari ci àdduna sama doom nga sama nawle nga lu ma naqari bëggoo ko kon man maa def dara lu la naqari mbaa seetlu nga li nga def bu baax mbaa wutoo lu ma neex rek bu ba def ko parce que xam naa bu dee loolu moom je ne me le pardonnerai jamais parce que xam naa li ci xol du ëm ñu koy bës te xam naa li ci bëgg bëgguma laa xañ sa bonheuru àdduna lan la bu yaay bàyyi moomu ndax yow damay dalal sa xel dalal sa conscience bon dafa dafa jot rek man ak Oumou ñu jeexal relation bi moom woo ko de la plus belle manière jeexal ko c'est vrai kër gi won nañ ma seen position ci ay moment personne ne s'est soucié de mes sentiments de mes émotions personne je les comprends um nag li tax ma bàyyi ko man maa jël décision jeexal sama relation ak moom man je me sens un peu coupable parce que viton comportement dama gis constaté ne depuis fan yëpp c'est à peine si nga ma nuyu bu ma wax ak tontu bu gàtt nga may tontu ni nga daan toog man di waxtaan di confier wu di kaftiree defatoo ko danga mel ni danga ma am daal une certaine haine wala loo may loo may reproché daal am na reproche bay def ci man boobu lan la au juste. yaay reproché wu ma dara dama nekkul rek dama nekkul rek mais reproché wu dara mu bëgg dem ci biti. tàmm ngeen lu ma leen ñaan wala lu ma leen mësa ni dafa leen ma lii ngeen teg ko fi waaw benn ñebe ci cin moom ànd naag sa fi marché muy ndey ñaay réew na moom ba fa réew dof waaye moom lu ma ko ñaan moo ko may dama bëgg suba wax ju bari ji baagante bi werante bi bu fi am ci kër gi. yow lan moo xew xanaa daa am lu ñu la wax ci suba ne dafay xew ci kër gi. suba kër gi day am gan. gan ba kenn wax. waaw waaw gana fi ñëw te bëggu xam naa leen. yéen ay vrai africain ngeen du ngeen añ ba sies waaw waaw ngeen du ngeen déglu information toujours yéen a ngi werante werante wu amul njariñ xam nga li ma la leen di jëppi moo tax ma leen fii ba nga naan du toog ak léegi nag suba gan a fii ñëw binom fi lay yéen war fee añ ah bu kenn ngaang bu kenn werante yow binom moo fi yendu si suba waaw war fee añi ngeen régler seen baaganteeg seen wax seen werante voilà ku yabaate nga nag ah. ku yabaate baate dëgg dëgg ba mel ni yow musuma koo gis ah. yow binoom mi war a yendu si biir gi dafa tax ñun ñu nekk ay muuma jël suñu euh, gémmiñ gi fermé ko pour lan binoom mooy kan binoom mooy kan dama lay laaj ah jëkkëru bàjjan daal moom bu diggee ci kër gi ñun dañoo war a noppi ñun wàññi suñuy jaabante suba nga nar a la naqari tey nga nar a am lu la naqari laa la wax dinaa jaabante nu ma safe yow mi xolal génne sama ufo teg ko ci digg ëtt bi di xolal animé lu saf di fecc lu ma neex lu loolu nga bëgg yow loolu nga wax kër gi dangaa bëgg mu sedd ne selaw kër gi dina xumb suba bañ yaakaar ne dafa dafee xel yow loolu loolu ma loolu laay def yow laay dimbali ma Ah. yow ba lu tax nga fuuy fuuy gu bees. xamul boppam. yow xamoo sa bopp. Hmm. ba yow sama yére bii ni mu mel noonu nga mel yor ngaa ko koloore. Hmm. kenn xamul fooy taxawee. baat dangaa yaakaar ne binam dafay dugal xaalis wala dalay dawal dépense moo tax nga ne nañ muuma duñu wax. Hmm. xam nga lépp ah. xam nga day wan tara mera waaye man booli laay sànni lépp muy rajaxa xam nga booli moo ëpp bur bi ba xam nga loolu. fuuy nga ñàkk ngaa xam sa bopp. Hmm, baal yóbbaale ba gi nga nekkee yow ku ñëw xam sa jikko yow ba ban façon nga mën a wàññi ni nga nekkee <laughs> li lan la ayo ah, ñàkk nga fayda de <laughs> gëmal sa bopp da ngeen a bëgg ma gëm sama bopp di jaay réewande suba laay xam réew ngeen wa yéen loolu sax billaay dama ko waat dama desitujo loolu ku fi jaay réewande mbaa nga wax ci kaw yàq nganug binam na nga jël say bagage dellu seen kër faw ma ci sax. ba pour nga dégg. faw ma ko faw ma ci xoolal animation boobu léegi laa koy commencé. kan. léegi nii fii ma toog nii laay commencé animation mu jëm suba. kon nga boole ci sa nijaay ji la mayoon mu ñëw wuy wuyuwaale ma boo taal buntu fi maa ngi moom ñu waxaale wa yow xam nga ne boo nee fase yow xam nga ne boo nee fase yow loolu da koy wax nii waaye yow doo ko jëfe yow on ko connaît. man binom li ma war a jëlee ci kër gi ko nar a yàq. nga jël say bagage jëm seen kër. yow moom yaay génn yaay génn kër gi. ndax li nga yaakaar dugg ci kër gi. da ngaa defee ne bi nam naxa naxa la wala dof la buy taxawaal. <laughs> wa waa dina leer. jaay nga jaay nga marché ñaata million ngay jaay par weer yow. ña ah da ngaa mës a jël dërëm ni ma demal ci dépense bi. ki jël doomam dévier ko. jël xaalisam tegal sama loxo dimbileetu ma jël bëgg maa yàqal man ku ko ci def dem ci biti. danga ma cee fekkoon ba ma ko ba mu nekkee xale danga ma cee mës a da nga koo mës a jëndal mais wala da nga koo mës a jëndal couche wala da nga ma mës a jëndal ensemble yow yaa ñàkk jom yowee eh, wuy ma fii dañ dem jaxaa ma woowee mu ñëw animé ñu kër gi dañ koy xumbal ba mu neex bobet ne fi wax nga dëgg la ba ma fàtte bobet xam ne la commencé di animé ba ba ni mu màgget bobet ne dama fàtte yi lay indi tax xam nga moom yooyu la ñeme yooyu balaa kenn yëngatu mooy di ko yëngu rappeur yi sax damaa bëgg ñu ñëw da ñëpp ñëw na kër gi yëngu salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah waaw waaw waaw suñu jëkkër jaa ngi nii luy yëg bi la. ah mun a xew bee tax nga xotti nii. yow lii macha allah di. yaa bëgg ndawal sama xew bi la. déedéet xew bi du lu tuut dama ne la. Ah. eh kuy wutati jëkkër bu ko coppati nee ko tiix ci dëgg ba na rafet a tudd bi ndax. dëgg ñëwaat ñëwaat. wuyu ba ci ko ci ko ci ko ci ko déggal li raamal raamal yow lan sa borom kër doo tuub jéggal oui macha allah alléluia ay waay waay li li li macha allah waay ci bleu bi bi quoi waaw ton sur ton bi la noir noir ah. yéen yéen boo leen tuddee ñuul kooku lay doon. kenn mënu koo téye ay te bien bienvenue. bienvenue jëkkër sama bienvenue. ñu ngi sant ah. <laughs> ak si toogal sama. bi allah waaye lii la lii xoolal ma lii uh-huh. xoolal bële bi bi fii bële bi bi fii lii daa c'est l'amour <laughs> macha allah yal na leen yàlla lafal jot ay yooyu bi noom fi mu doon ñëpp a kontaan uh-huh. kon bi ñëpp a kontaan xale yi mag ñi ñëpp doon jubile naan ñii dañoo sonnoon seen relation ba ñu doon génn ba ñu sëyee rek dañ naan alhamdulilah nag seen génn gi ñëpp a ci sonnoon ruq yeeg fu ne booru ngeen fa entraîné na la fu ah lii dañ siy sant yàlla man pour man sa tey fanaan si sa indi ma sa valise. li ngay wax témoin nga ci. li ngay wax nii témoin nga ci. témoin ok parce que xam nga li ngay def ni diffamation la. diffamation ah kay. dugg nañ fa fu ne teeru ah. fu ne recevoir man dama fi wax waxi femme. man fu duma fi ba léegi femme de. waxuma fi <laughs> diffamation la la ah, mooy waxal nit ki lu mu deful. <laughs> mais xam naa xaw ah, ma. non non <laughs> non macha leen di wax rek kàddu yu ndaw rek laa leen di dénk. na xam nga du turu sëy moom du ay caaxaan ndax génn am na génn relation la ngeen di génn demalante tey mën ngeen a bàyyante suba ngeen àndaat mais sëy dafa doon loo xam ne c'est éternel dama bëgg kii sa soxna la bis ni ki tey nga xoolee ko bëtt soxna jigéen danga koy yor yiir ko lu mu bëgg fi mu toll nii du ñaan kenn du àbb kenn lépp soxlaam yépp sa ndodd lii la ne comprendre nga. bëgg naa yi ngay def nii moo tax man dugg na léegi nag moo ngi noonu yow it bàjjen yow laay waxal kii sa jëkkër la borom kër sang la danga koy respecté jox ko gis nga yi nga daan def yëpp di ko yooyu yëpp amatul de sëy loolu bu xësee ba baat bi jub ni ni diw may nañ ko diw ci farata yàlla ak suna suma xamet mhm. loolu waratu la am ay problème eh yow yow nante ah? <laughs> yow mii yaa ngi doon assisté ah mais yaa ngi déglu déglu déglu conseil vas-y allez vas-y vas-y. dama laa dama laa gàñ ba ba ay eh, maa maa jégal ko expliqué li nga nekkee woon baax na c'est bon allez vas-y. merci merci. li si des yàlla na si yàlla was barke. intéressé ah, fi la discours bi yem ok. xam nga xam nga ñoom. dañoo mën a wax. ndeysaan. di wax ay taati potolampa taati ruq ak taati kii. jamonoy Ali Potolam Ali Pipe Ali. Ali rajo yow yow bi na man mos naa laa woon ñàkk fayda. déet déet surtout ça. war fee yéen su war fee añ ñu bége. toog añ ba suur waxtaan kafre. ndeysaan. Ndeye Ndiaye yor laa mi ne bii rek amee ma man maak yow. conseil la yàlla def barke. amiin yal nañ ci yàlla far cat. amiin yaa ngi dégg. Mhm. kon nag lu ci waay wax rek bul fàttaliku du fàttaliku. ndax ay ah, eh, door nañ la fii xas nañ la fii wax nañ la fii waaw passé la du ma ko indiwaat pour fàtte rappeler leen bu ci rappeler leen bu ci rappeler leen ñun xam nañ ni ñuy def man li ma koy dolli sax mooy du ma niveau ci mbir mi mm-hmm. ah mosuma am marié may ah. bàyyi umu waaw dëgg la boobu yàgg na sëy boobu sëy di jar cent francs la woon dégg boo taxawee di ma conseil da ngaa waane sa bàjjen déglu rek ndax gëj nga gëj nga xam nga dama leen di ñaax rek gëj nga am jabar de waa léegi. waaw du ma la du ma la joxaat ay affaire rek mën nga fàtte. maa ngi lay félicité ci loolu. ok merci à mhm. ah, léegi yow mbir mi noonu ci pandaw gaa gi di jeex na tàkk. Mhm. léegi dugg si nga ci kër gi. Mhm. fii laa lay bàyyi comme ni ma la ko waxee woon. ba kër gee pare nga rejoindre nga dem sa kër. maa dañ ko def étage ci kaw. plus un ah, la loolu gis benn si wàllu benn. plus kaw nga jëm. du dëgg mm-hmm. location wàcc na la xat-xat loo puusal ma tëdd may ma tëdd tëddal ba pare jug xajal ma ma tëdd wàcc na la lekk ba suur naan ba màndi voilà voilà léegi daa amoon na mën a bëggoon a ñaan rek mooy nga may ma man loolu sama propre ñaan la hmm. ma bëggoon nga bàyyi ko mu noppali ko ci kanam na xam nga dafa jugee ci xew bu dee après nga pour jël beeg yooyu coucher beeg yooyu nga may ñu ndax dafay doog a takk xam nga takk jàkka de démarcier yooyu mu noppaliku. yow lan moo sa sama tëdd. ah. yow lañ takk wala moom lañ may ñaanal bu may bu ma tëdd. foofu ngay waxee kay lan fii luñ fi may amatu fi papa pam jeex na c'est terminé fii luñ fi may amu fi ah. kii xam na li may wax yow yaa xamul yaa comprendre yow la ngay ñaan tëdd jàmbur la ma soyoon ba ngay ñaan. xëy na moo koy tëdd moom. ah. taamu euh, kii c'est comment nu mu tudd. xaw ma sa nu mu tudd maam. na nga tudd. j'ai perdu mon nom. jugal nga dem. la prochaine. kii maay bàjjenam. jugal nga dem. yàlla moo sonn suñu tëdd. xam nga dégg naa say ci kër gi ah. oui yow affaire vulgaire ngay jéem a dox. dégg naa ngay dugg ci classe ay GIGN ak yooyu yaa ko fi wax xam nga lu GIGN ah kii dafa tofa ñoo ñu ngay laal pour ñu laal la du ñu pour benn nit benn élément bu ci nekk pour dix personnes lañ ah ñooñu war nga leen tuddee ay fer waaw. foog nga soppi ko affaire yi pour nii la moom nga dugal kër gi yëngal pour ñu mën a xam ni fi mu toll nii moo wax loolu la ñuy wax. mais respecté la <laughs> ko boo demee ma ngay jooy. mooy bàyyi foofu rek yi noonu la parce que boo demee Bango. booy dugg si dañ naan la comme xar. ngay génn mel ni gaynde nag parce que booy dugg nga jëm lan la da naan patt ba xam ci li nga jëm boo dee ba ñu formé la ba pare un lion ngay daal di nekk di yëngal gësëm ah boo waxee nit ñi commencé kii looloo tax ñu way kii moo tax booy dugg nga yëngal <laughs> boo dikkee yëngal. ma la wax noonu laa bàyyi. ñu réglé ñëppay réglé. nii nga def. waaw nii laa nekk ci a metti na. Ah. xew dafa ah. ma sa takk jàkk bi rek metti nii man ma xew fu mu jàpp. beneen bi moom xam naa ne. Hmm? Euh, foog mu foog mu gën a compliqué parce que loo xamul la boo duggee ci loo xamul nii lay demee man maîtriser naa ko ndax mos naa koo kii kon bàyyil ma ñëw dem dama doon nemmeeku si rek xool la. nii nga toogee. kontaan nga ci man wala kontaanoo ci man. sa première pas sañ nga deuxième pas moom xamoon nooy def. waaye première pas moom wàññeekum naa maa la commencé maîtriser ah, léegi. amoon noonu la jugal ma la moo paya. moo bi noonu. déjà bara desu bara desu. ayca woon yu fa booy dox da nga naan teg booy doo def nii dama baax rek waaw. ok ah lii lii lii baaxul. non baaxul lii day yembal ah non non non lii day yembal ah. tout sauf ça lii moom moo. rek moo gën mu ma gaare oto bi sax wala.